sa cheveux bi nag dafa baax. waaw bii de xam nga nag tuuti original la. mais maman. oui maman sama xarit yi foo ma bàyyi dem. xew. loolu de Dieu. xam nga dem noonu la doyee. kaay añ. añ. je t'assure. si weeru koor bii. si weeru koor bi maman. ñaari ñëw teg seen bool ba moom ay sama kaay añ man. c'est la dernière des choses. ah bu la woowee añ bu la añ de. damaa saa woo te bul yàq sa koor ndax ñoom ñii nag vraiment seen ci xalaatu xalaatu ma ko sax man je veux même pas que tu les fréquentes. d'accord. oui. gis nga ma. Aliou mais def nga boo. merci mais tey la sama rendez ak Germaine. tey la. tey la. waaw. léegi nag ñaanal ma lii rek ma ci def lii bu jàll tàkk rek. yow xoolal jàmm rek ngay am parce que yow dañu mën a déggal indi loo benn problème. yow lu baax ngay am. merci. ñaanal kon maa ngi cee yoon. aywa. ok xool ma fii. Mm. fii laa de. oh tonton fii. waaw. attends attends maman maman attends on est où. jël nga Alioune Mbaye wàccee Djiby Sèye maman dafa naan yaa am na si roche ñaareelu ko sa papa non non attends maman maman kay jël nga Alioune Mbaye de la de. ba pare li mu sol li mu sol dara baaxu ci yow yaa ngi koy glorifier naan sa Alioune li duñ daw ba fàtt Alioune Mbaye dara fi indi woon caay. xam nga yow. xam hmm. nga Djiby Sèye xam nga Alioune Mbaye. tey bu di sañ sa amee à la bonne heure. nga jëlee Aliou Mbaye taa yoon moo ma jaaxal jël ma sama waay. doole ma defal la sa bopp defal nànk bu baax a baax. maman man boo ma jaxasee ak àdduna defal nànk. yow xam nga Aliou Mbaye bu baax la bi xam nga leen yow. sa yoon nekk ci. waaw loolu rek laa lay xamal génn sama diggante ak Aliou Mbaye. entrez. Bonjour, bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour. Enchantée. Que ah, puis-je pour vous Là, on est venu pour des renseignements. Oui. On revient pour mon Très bien. écoutez, c'est assez simple. Voilà, il y a un dossier de mariage à remplir avec différents documents à nous fournir. Donc, je vous explique, c'est assez simple. Vous avez les renseignements sur le futur époux pour monsieur, ah, ouais. les renseignements pour la future épouse pour vous-même, et ensuite vous avez donc à remplir et à nous rapporter, et vous avez aussi des, Ça, c'est très important. Alors, par exemple, donc vous, une carte nationale d'identité. Vous, pour monsieur, euh, votre passeport ou votre titre de séjour. Vous aurez également une copie intégrale de votre acte de naissance à fournir. Alors, pour monsieur qui est de nationalité étrangère, vous devrez demander ça à la mairie de votre lieu de naissance. Ensuite... Ah, a ah, ah, refoulé ba euh, il y aura autre chose à fournir, ce sera un certificat de célibat ou de non-mariage, euh, puisqu'en fait vous pouvez pas déjà en France, euh, vous pouvez être marié. Mm-hmm. di day compliqué te ñoo bàyyi ba dem Sénégal ah si <laughs> donc ensuite il faudra que vous ayez deux témoins chacun du coup je vous donnerai ce papier là un témoin les coordonnées d'un témoin les coordonnées du deuxième témoin vous voudriez vous marier quand demain alors si vous voulez vous marier demain il faut absolument ramener tout le document demain et vous pourrez vous marier. Euh, demain. Merci. Je vous en prie, à demain merci, ouais. et euh, à demain. Merci, merci. bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. bien en forme Ça va bien, merci. Bien. Je t'ai fait venir mm -hmm. parce que je voulais te dire ça euh, donc euh, en face. Mm -hmm. Et je voulais, c'était pas possible au téléphone. Voilà. Maintenant, tu es une grande fille. J'avais quelque chose que je te gardais depuis des années. Mm -hmm. euh, maintenant que tu es majeur, tu es marié, je pense que je peux te remettre ce qui te revient de droit. d'échange. Comme franchement, je ne sais même pas comment remercier. Parce que sama parents yi depuis bi ñuy décédé ba léegi tu es mon parent c'est toi qui gères tous mes biens et nga xaar ba ma màgg nga ñëw jox ma lii mu nekk franchement benn contenté bu mag a mag ci man aw ma sa fay aw ma sa fay maintenant je suis une très grande dame. toi, je vais me marier et tu vas venir, tu seras mon parrain. Content de Ça me fera plaisir. Ouais. La seule façon, façon de me remercier, c'est de bien dépenser cet argent. Je vais tout gérer dans ton poche. Ne te fais pas de soucis. D'accord. Bah, je vais rassure. y aller. Ok, ma chérie. Merci. Allez, Allez. au revoir. Au revoir.